amul solo yaa imaam hmm. sama takk gi laa bëgg nga jóg takkali ma ko jabar tey jii sama jabar ji laa bëgg a takk tey ci guddi ma ni waa njóogu yow lu la dal nii lan la dara daluma fagarul rek ndax yooyu dañuy reye fine amul solo fine nice three minutes fine waaw jugóon ñu dem waay allahu akbar waaw doo dugg ci douche bi nga sangu boo ñëwee ma wutal la yére bu rafet nga sol ko ñu dem <laughs> petit nee na dina ma ñëwal costume bu rafet ma sol ko waa Ndiogou ana xale yi dénkaane naa la koo leen dénk yow dangaa yaakaar ni am na keneen ku mën a sàmm ko dul yàlla suñu borom moom laa leen dégg te mu ngi leen sàmm sàmm bu rafet ma ni demal ma dem wuti guro fii fekk la takk ah waaw na nga ñëw de ndax xam nga ni yow laa may première njëkke guro gi sax jaru ko bu ñu amee sorance su Casamance bi ak gerte caaf te gerte caaf bi daanaka am naa ko léegi xam nga du ñu def bàyyi ma dem Casamance te ñëw uti ma ñëwee ñu takkee ko takk gi. waaw demal Casamance boo ñëwee fekk ma takk ko dégg nga. bul fàtte nag mag ñi dañoo gaaw a fàtte. maa ngi dem <laughs> yaa imaam amul solo amul solo. Oh, amul solo. ooy yàlla suñu borom. laa ilaha illallah waaye njóogu mi nattu bi ko daal yàlla na ko suñu borom teel a teggi di ah. cëy waaw Moustapha xam la laa lay bëgg a yëgal na njëkk tey na mujj tey nga di ma woowati di ma am loo may kii sama vie quoi que ce li ma la yëgal am na li nga war a lijjanti te mi ngi sa biir kër yow say doom ñoo ma gën a pii lijjanti woo ko loo nga lijjanti leen ah nit ki di dem demam xamoo lu muy dem nga wokk naa ko ñee eh, eh, ñee eh, ñee na njëkk tey dégg ma la yëgal déglu ma boo gisee ma woo fii ci kër gi man yàlla rek mooy ñetteel boo gisee li tax sa yaay man moo ma ñaan pour ma waxtaan ak yow xool nañ ba xam ni yoon wi nga jël boo ci continuer baaxul te sa yaay yow rek la yor ci doom bu jigéen te bëggula ñàkk ci melokaan wi kën nga nekk waaye nag yow delloo si nga ma ci sama plat ndax dëgg nga ma wax tey ji ndax tey am naa lu ma war a wax ci sama biir kër gi waaye nag yoon wi nga jël de du yoon wu jëm kër de yàlla na la yàlla jàppale ci lu baax ba nga jóg ci hmm. gis nga Pa Moustapha fii lu waay bëgg moo kay may boppam te li ma bëgg dinaa si jot te maa ngi ciy doxi nii ah dégg nga ma njëkk tey da nga may pakk yi C'est ça la vie. suba ba léegi maa ngi lay bëgg a joindre mënuma laa jot lu xew yow gaawee ma lan la danga feebar c'est ah yow mosuma laa gis nii di je ne sais lan la sama yaay sa yaay lan dafa gaañu non waay pour waxu gaañu ñu sant yàlla daf ma may doomu cousine takkal na ma ko ñaareel. doomu cousine am yow da ngay mbalag wala la. c'est la vérité. c'est yëguma ci dara lépp ci sama ginnaaw la ko defee. loolu de gëmuma ko. lan laa ci mën. mais mënoon nga bañ. ci nan. loolu mënuma kaa gëm. ci nan nan nga bëgg ma bañee ko nan. lan laa ci mën. takk goo xam da nga ñëw rek ñun la maye nañ la qu'est-ce que lan lan laay bañ. je ne pouvais rien y faire. wax leneen waaye lii mënuma kaa dégg ba koy supporter sama àddina imaam loolu daal la yàlla dogal hmm? njoogu daal taqalikoo naag sagoom nii rekk loolu de ëpp naa seetaan wax dëgg yàlla. ah Aïda lii nga wax la wax wax dëgg yàlla mu ngi ciy def kemti lay kàntanam ah jërëjëf jàmbaar la. Mhm. waaye nag wax na dëgg. Mhm. yii moom dañ cee war a taxaw suñu kemti lay kattan ëpp naa sàggane. Aïda day jël na xale yëpp. xale yaa ngi ci loxo wax dëgg yàlla jàmbaar la fim ne daal. xelam ak xalaatam yëpp xam nga ci lu mu ne wër structure de santé boo xamee ne bi maanaam mooy ñooñ di faj xel daal ñu tàqali ko seen sago ci lool daal la nekk mu ma ko mujjee gis daal loolu la ñuy waxtaane dëgg la mën mhm. mi sax am naa sama benn doomu xarit psychiatre la ci benn centre spécialisé la nekk boo xamante ni ci domaine yooyu la yëngu mhm. xam naa danaa ko gis laaj ko mu wax ni mu teg ñu ci yoon alhamdulilah imaam loolu koy gën a gaaw doo koy loolu daal. Mhm. nañ ci bàyyi xel beneen bi ci des mooy. Oh. Euh, njóogu mi bu yeboo ñu topp ko ndax buñ ko sàgganee yi fi gën a doy waar te bu boobaa coono yokku. Mhm. Euh, ñaari doomam yi mu mujj am nag ku sàgganoon la xam nga ko yow. dama xamul ndax wutalal na loon kayitu juddu am wutu ko. maa bëgg na nga gëstul ma laajal ma ayta ndax am nañu wala amuñu. bu ñu amul ñu taxaw ci. imaam loolu koy am na ba pare bu soobee yàlla moo jógee fii. Hmm. ca aytalaay bu soobee yàlla. moom xale yi moom kay xaw ma amoon nañ ko wala amuñu ko woon waaye buñ ko amutoon hmm. daan ko wut. bu soobee yàlla. waaw imaam maa ngi ñëw dem na. waaw yàlla na yàlla xaw ma buñ la amul woon nan lañuy def. <laughs> yàlla baax na yàlla imaam nag ñaanal. yokkal ñaan de. Ah. imaam. Ah. ñaanal ma ndax ma am borom kër nag. waaye yal na la ko yàlla ci jaamu yàlla nag. yal na la ko yàlla jox ah wutal ma koo xamee ni kii nag ku. su dul loolu du ah damay jékki-jékki rek daal di jox nit ñeent transa bi. te boo ko amee nag yal na la ji. waaw jërëjëf waaw yal na si jërëjëf yal na ko yàlla indee jàmm jërëjëf ñu yendu jàmm imaam ñu ñëpp jërëjëf waay jërëjëf waay jërëjëf. ok. waaw Anta ah jànk kii du yow xale bu jigéen bi namu naa la. maa la waaw. yaa mel nii. ah. sa bopp. Ah, ne moom yaa ngi sonn. merci. léegi moom yaa ngi seen biir kër nekk ci sa wetu yaay non kontaan naa trop jant kontaan naa trop nag. maa la <laughs> moom moo tax nga leer sa leer gu metti gi dëgg la. Max lu nga wax dëgg la tey maa kër maa sama kër yaay kër goo xamante ne war ma foon a génn mukk génn gu ma génn suñu kër. Mama ma samay tolof tolof yépp ci aduna waaye nak légui alhamdulillah damay sant yalla rek nox yalla baxna yalla ñepp la fi nekkal yalla mu ñuy déglu di nangu suñuy ñaan di ñu bëgg am suñu yermandé bul décourager yàlla suñu boroom ku ko ñaan mu nangu sa ñaan est-ce que dina nangu samay ñaan duma mës a deñ ndax lépp lu yàlla suñu boroom doon tere ci laa nekk lu bon loo xalaat def naa ko lenn lu baax defuma ko kon man yàlla duma déglu du ma mës a déglu non bul wax loolu yàlla dina la déglu yàlla ñëpp la fi nekkal yàlla mooy nangu tuub mooy nangu julli lan la ah hein? là hein? ah ah ah ah, ah, ah. ma ne fais pas ça toi aussi ah ah bébé ah non non, non tamit ah lan la. Ah. Hmm. ma daf maa utal beneen mujj eh. bébé lol motax ngay joy ni xanaa xamoon ne man deg na ñu ne moom wutalu ko bopam de yaaya mu ko wutal ki yaaji la sama wulé mhm. mu nona bañ mu nona bañ lu mu nang loolu kay ma wax la lenn nak affaire famille moom yoy do ci mën dugg te yow xam nga ma xari bu baax ma xari du ko nan dedde ma xëri du xippi sax xool nit xam nga ma xëri mos du jéem a tëni te famille yam dafa leen déggal loolu war sa indi lii bébé ah hmm. man xam naa ni yaay ma xëri mm-hmm. musuma bëgg lii wóoroon na ma tôt mm-hmm. dina ut pexe bu muy def pour séparer ma ak ma xëri surtout nag doomam ji ñuy waxu ja kooku moom gis ma ak gis butitam la yemale mm-hmm. mag ñii lan laa leen def bébé waaw dëgg lu teeyal bàyyi lu ma leen def laa xamul ci àddina waa xoolal nag dalal la sa xel bàyyi lépp ci loxo yàlla yàlla na defar lépp ba mu baax bàyyi lépp ci loxo yàlla bul defe nii yow tamit ah yow tamit yow bàyyi danga may na ah lii la mu nga naan la fas yéene def piire bi yow maman Khady am na juróom benn weer mama wala hmm mama xadi amagul juróom ben wer mais damay teel jeur sama matuwaay. du ma fi nek diko nampal ba sama ween di daan bu so defee nak kenn duma xolati xoolati. yow ban ndax ma xari mi ma gis ni mama Wula ci tank ba ci ma la nekk. déedéet bébé kay kay ma wax la kay ma chérie kay ma wax la gis le pire bi hein yow sa bébé amagul juróom ben wer nga di ko bëgg a jox lekk yow loolu koo koy def xoolal lii boo ko defee dinaa la mere trop bébé dinaa la bàyyi waxuma la dara waaye yow ak ni nga intelligente nga bëgg a wàcce sa bopp ba tuuti nii lu ko fi jàpp rep rep dina rep tep rep tep rep tep dina tep rep dina rep tep